Madam Vivian, Madam Vivian, Madam Vivian wad Madam Vivian ndour ndour wad ex ex ex da metti de fi ngeen ñu japp naan ex pastef ñu tenir ko ñu tenir ko yow une semaine ci une semaine mutu ko sax ci lan la wax ex 7 tv yaa ngi xataraayu di saga, lu ne nga di ko def seetaan naa sa émission bi ba mu jeex tàkk mais waxoo fi lu ajum ngooñ li cheikh baara waxoon wéej du ci virgule bis ba mu waxoon ne ku dem tribunal dana la fekk ñu lay atte bis booba ña dem fekk nañ ñu lay weddi woo ne da ngaa yore xaalis depuis 2018 ba léegi mënoo fay télé bi 2018 ak léegi yàgg na def na juróom-benn at mënoo fay tele bi condamnation bi mënoo ko weddi nekkoo fa lenn lu dul ay saaga naan parte pelante naa ko ajuma bi jàll li nga war njëkk a def mooy sa agression boobu nga ne yóbbu nga ko ci yoon loolu lan war a njëkk a leeral mooy sa agression tappale bi fi nekkoon da nga fay jomaay fay moo yor réew mi réew mi fay la sant te bor fay la sant yow xaw ma nga sant xaw ma fay nga sant atte bor fay waxoo fi laajum ngooñ li ngay bañ a dégg nag X7 TV X bi far la force danga ko dégg ndax ñun ñii bëgguñu woon a dégg X Pastef te te chaque jour ci sa plateau yi nga X X X X7 X7 TV ngay par la force danga ko dégg X7 TV laa wax wax ba sàmba di ca demb waxoo fi lu ajum ngooñ li Cheikh Baara waxoon dindiwoo ci virgule bis bam ne dañ am nga am dañ lay atte atte nañu la condamné nañ la sëriñ bi maanaam seex Baara daa def fatt fépp fatt fépp gél a arrangé wul may mën a nduur fay bàyyil tappale yi nguur nguur gi fi nekkoon di la